bilaay mooy mooy baadoola. sëñ Daouda yaay baadoola. bilaay yaay digle koor gi. fii ci koñ bi boo xëyee sa kër koor ka waaye mais gaaw. am na sa téléphone nga ji ma bànn bànn. yow ba Serigne Ba. yéen ñi xanaa seen papa tudd. naan amu leen ñaar de xaari ba. rek jéem a réew réew waaye yow bañ maa may. waa jeex na de. Hmm. waa jeex na de bu ma. am jeex na de foofu man. waaye lépp di kanam xaari. nga xaari ma xam ko. xaari ma sa doom. mais gaaw man damaa xiif. ma ko am sax na cukka donc daa jot. Ah, jumaa ji dafa sonné. Ah? kii ni mel bu dee koo ramaat xam naa ne jumaa ji dafa sonné. heure ndogu ba jotee ñëpp xam a nga dog. jumaa ji dafa sonné. jumaa ji dafa sonné. Eh, jumaa ji nodd na magum sonné. ah nodd na. waaw jii moom dama sonn sonn sonn. koor gi ni ma ci sonne tey mère njëkk a ma njëkk laa jox sa baay a naan. wax nga tegal kaas bi tegal am na. Eh. Eh. Eh. maam Diar doo ma xëy ma ma ma kii loolu noonu. am na moom. Ah. waxal na te ma booral mburu bi. bëgguma bër. am xaadim. xaadim tegal lii tegal mooy sa xaadim bi yebaat mooy sa man ñu jaay man man damaa joom man xaadim bi yàq nga ko lool ba yàq yaa yàq kenn yëru ci waaye xam naa ne commissariat de Bel di yóbbu moom dañuy yàq xale ñu jaay même maa ngi di de ah baa moom naan kafe kafe kafe gi moo gën a neex soo paree defaral ko benn njaay toog sama nijaay ba pare man. man fu nii. Hmm. ndox laay gën a bëgg. loo tax it ndox laay gën a bëgg ndox. ndox man ndox. nga la eh Talla bàyyi ba xëy la indi indi kaas bi. aywa aywa na léegi. dañu naan dafa bàyyi nii. kër gaawal. c' ba am na. Oh, oh, oh, waaw na fees na fees na fees. xaaral lu ma foog doon waaw turu ma fi tuuti rek tuuti. turu ko ma ànd ak sa ndax ay ma dooli. am. waaw ba baax la. doon na. ma ma baax na. doon na. ah eh, baax na de. Eh, egg nga gaara. fi doon nii kay moom. li ma ci del papa julleegoo timis de. waaw dama koy kii ba ci kanam ak. timis de passé de. waaye man damay gént wala. waaye lii lii lii waaye lii du dëgg waay. ah. waaw man li ma li gis fii lépp. bisaab. mburu kon ndeke dog jotul. Ah. waaye yàlla yàlla waaye yàlla yàlla nag wax dëgg yàlla nag teg ma xiif bu toll nii ba pare di ma di ma ay ay yu kenn xamul ah. oh. nag dafa doy waar ndax fi mu mënoo xam wenn waxtu wu jot mënoo koo xam waxtu wu jot mënoo koo xam doy na waar rek fi nii salaamaaleykum. maaleykum salaam. Papa Ndam. waaw. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm waaw. waaw ah, dafa mel ni nelaw de wala. maa ngi doon nelaw waaw. sama yaay de moo ma yónni. sa yaay. waaw lu mu la yónni noonu. mu nii nga jox ko natt bi. natt. sa yaay kañ la daan yónnee nag di sa yaay daan toog ma jaar fa de jox ko natt man daal dëgg dëgg dëgg nag wax dëgg weeru koor yi nag mi ngi bëgg a métti yow da ngay jógee ci lii daal daltale ah yow da ngaa yor lii waaye lii lu mu daan màng yow war ngaa lekk ci sama biir kër gi la ko Ah, man sama kër kenn bi ci dugal euh, lekk ci weeru koor de loolu dama koy bañ dama tegal fii bi tegal fii eh tegal ma fii mango bi laa ma wax ngay dugal lekk ci sama biir kër bu ëllëgee bu rom ma nii eh rom ma nii laa la rom ma nii ne coowu ca biti neel sa yaay nag heure moo ko amee dinaa fa jaar jox ko acca laa wax waaye yow ak sa xar sànni boobu noonu caxay mën naa koo gën <laughs> mango bi daal mel ni sëtagudde kii mango ren la ay waay kii kay daa koy daal di wax naka ni déwén daa koy yëg kay. ay mooy baadoo la.